chaque année yàlla dafa dogal fii ci résidence Xaadim Rasul te chaque mois weeru koor dañ fiy daje diiru premier jour yi ba ci bis bu mujj ci weeru koor bi ci ndigalal xalifa général des Mourides ñu jaare ko ci porte parole bi mu joxoon comité départemental Croix-Rouge bu Mbàkke ndigal pour ñuy ñëw di jàpp ci liggéey bi comme ni ko yeneen seet ci jàppee ah, comme ni ko xam ne nag Croix-Rouge su ñëwee liggéeyam dafa bari ay pàcc am na ci pàcc boo xam ne day ñëw ànd ak waa Kër Docteur comme yi nekk am na pàcc boo xam ne da koy nekk ci fi Baye Fall gi mooy xam fi ne ni wàcce dogo yi ak fa nga xam ne mooy axlu café fa ni joxe café yi liggéey bi nag comme bépp boo xamante ni bii doomu aadama nga fay ñëw ci kër gi wala ci jumaa ji yàlla dugal fi jàngoro wala gàllankoor dab la fi ba mënuloo sa bopp dara croix moo lay jël saytu la meeb la jox la wàkk kër docteur ci anam yu mucc ayib loolu mooy liggéeyu Croix-Rouge ci bis bu njëkk bi ba ci bis bu mujj bi ci fii ci kër Sëñ Touba ci weeru koor yëpp xam nga croix na nag da xaw a yaatu euh, su dee yenn services sanitaires yi ñoom dañuy mais nun bët bu set la ñuy ñëw ba diiru koor gi yëpp suñu liggéey nag ah, dañ doon polyvalent ni ñuy jàppale ci liggéeyu waa Kër Docteur noonu la ñuy jàppe ci liggéeyu waa sapeur pompier ak waa SAMI noonu la jàpp jàppe ci liggéeyu waa service d'hygiène moo tax dañoo polyvalent moo tax yu mel ni nii euh, kuréel gi wala organisation bi dañuy soxla wala waa kër xalifa bi dañuy soxla ngir duñu yóbbu ci pàcc yu bari yàlla may nañu force boobu ànd ko autorités yi nekk ci département bi yëpp Touba ak Mbacké ak kilifa diine yi ak bépp euh, koo xam ne yor nga fi na bay tànk ba su xew-xew amee rek donc da ngay sam xel day dem ci croix rouge nga jël ko indi ko ci limén li ndax liggéey bi moo xaw a polyvalent day nekk ci médical nekk ci geste premier secours nekk ci conseil psychologique nekk aussi ci bépp liggéey boo xam ne hygiène assainissement la moo tax suñuy mbir fépp nga nuy gis ñoo ngi ca waañ wa ñoo ngi ca ndog ya ñoo ngi ca café ga ñoo ngi ci biir fi sëñ bi di nekk fi di jànge ñoo ngi fi isbu yi ñoo ngi fii ci euh, biir résidence itam pour médical bi moo tax fépp lañ ma ne chaque jour euh, à partir de 16 heures ba dog jot ba julli gee ñoo fi bët bu yàlla sàkk ci diiru weeru koor bi yëpp ñoo ngi fi di premier jour au dernier jour ci effectif boo xam ne léeg-léeg su dee àjjuma yi bi bi boole bi di ëpp dañu ko yokk bu fukki nit su dee yeneen bis ñu def ko ci juróom-ñetti nit kon daal bët bu set gën ngaa niw juróom-ñetti nit dañ fi dajee nekk fi ci 4 heures muy 16 heures ba euh, ñu julli gee ba nit ñi tàggu fii ba ñibbi seen kër ñu soog a mën a am droit ñibbi comme ni ko ñëpp yi defee donc noonu lañ ko defee ci weer wi yëpp amul benn bis bu ñu jëlal manquement bi moom nun daanaka nun a yu ci oto mooy demukaay ndax xale yi nga fi gis ñëpp ñuy ñëw chaque jour ku ci nekk yaay passé sa bopp ñëw fii ne deman dina man di dina leen jëli Touba ak Mbàkke fan suñu paree muy yóbbuwaat leen kon bi ci njëkk mooy wax dëgg yàlla manqué nañ oto boo xam te dina mën di mën a jël suñu éléments yi di yóbbu te xam nga yow Croix-Rouge Mbàkke ni mu demee sollicitation yi bari na màggal yi na cant yi bari na auto administratif bari na dañuy soxla à tout moment chaque jour que jëfee dinañ am ay couverture yi dem te xale yi ñooy passé seen bopp yi dem ambulance yi district yi yóbbu nu waaye nag suñu bi ci ëpp daal mooy oto daal lan manqué di ko dis yëpp ak Touba Mbàkke ak euh, administration bi ak chef religieux yi